ci diirub ñetti fan. jëloon nañ mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne moo gàllankoor secteur bi nga xam ne ci la ñuy évoluer tënkoon ko mu nekk plateforme revendicative boo xam ne porté nañ ko devant les autorités jaarale ko ci presse bi waaye jëloon askan wi tamit seede fépp foo xam ne mbir moom war na fa àgg àggoon na fa waaye tamit ñetti fan yooyu mayoon nañu ñu gën a lëlu ci ay jataay yu wuute ngir gën a mën a xalaat ca nam gën a xóotee ci mboolem jafe-jafe yi nga xam ne cité nañ ko ngir mën a indi ay saafara ci jëm ci yoo xam ne dina mucc ayib te dina doon yuy sax dakk waaye tamit ci loolu ba tey ki nga xam ne mooy ministre bi yore wàllu commerce lu bari ci jafe-jafe yi soxal ko woowoon ñu ci aw waxtaan waxtaan woo xam ne la doonoon càkk yéen a ja mooy euh, solution di saafara man faa juddoo bañ seqee waxtaanoo ba génnit gis nañ ne la ëppoon ci jafe-jafe ya concerné ko mën nañoo wax ne am nañ yaakaar ne danañ ci am ay saafara ndax jataayub tey bi rek jàmp na ngir jël ay décision yoo xamante ni bii dafa war a sax waaye dig nañu am ndaje ci lu jàmp loo xam ne danañ ca mën a gën a waxtaane waxtaan wu xóot li nga xam ne moo ko ci soxal ci jafe-jafe yi ngir mën cee jël ay saafara yoo xam ne bu soobee yàlla day nekk lu ñuy fàttali koti waaye tamit waxtaan yi mi ngi wéy di am ci kanam kilifa yi nga xam ne ba tey ñoom la mbir mi soxal xam naa ne fuñ ci toll incha allah danañ dellu siwaat gën koo leeral ñi nga xamante ni bii mooy mbooloo mi. bu ñu sukkandikoo nag ci soriwaay bi nga xam ne waxtaan yi sori na ko ci mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moo waraloon grève bi waaye ñu bàyyiwaale xel tamit tolluwaayu réew mi ci ñaari xew-xew yu mag yoo xam ne dëgg dëgmal nañ ko te it jëf lenn lu mu légitime légitime day jëm ci luy niru lu koy gàllankoor muy bi ci njëkk di ubbi école yi nga xam ne ñun ñëpp la soxal waaye beneen bi ci tegu di li nga xam ne mooy ubbi tey jumaa ju mag yi ci Dakar di Masaalikul Jinaan ñu nekkoon kat jaadu na ñu ajandi li nga xam ne mooy mot d'ordre de grève bi ba jëmmi jamono waaye nag li nga xam ne moo soxal loolu day yem rek ci place yiñ ñu tëjoon ak ñàkk gi ñàkkoon a lal taabal yi wala ñi nga xam dañu ambulant ñàkk gi ñàkkoon a gàddu seen i bagage dem jaayi ko waaye li soxal conteneur yi nga xam dañ ko bàyyi woon ci port bi te waxtaan yi ñi ngi koy wéyal dañ koy maintenir dañ ciy sax continuer bàyyi ko ci port bi ba waxtaan yi àgg dogal buñ ci jël danañ dellusiwaat fii leeral ko mbooloo mi waaye nag lu ci mën a xew ci yooyu yëpp rek bu fekkee engagement yi nga xam ne jël nañ ko ngir jëm ci ubbi waxtaan ngir saafara yu sax dakk bu fekkee ne loolu amut wala beneen dogal jóg boo xam ne càmbar nañ ko gis ne am na lu mën a gàllankoor ci li nga xam ne mooy suñu liggéey du am lenn lu ñuy xaar ngir delloo buum ca boy boy ba ca nam gën a tare incha allah